ilayka bitakrimi wa indaka jaalha ajalla xayri bila nihayatin wa xallid mayri yallahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddus ya mukrimi ya mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di ziar di leen baalu ak di leen ndokkeel ci weeru koru tedd wi tey di fukki fan ak juróom-ñeent ñu àndoon ak waa Alwafa fii ci Daarul Muxti ci waxtaan yu am solo yi nga xam ne nii dañ koy def bët bu set di ci dundal koor gi tey nag ñu amoon xewal ak mbégte dalaloon Serigne Mouhamadou Mamoun Mbacke ibnu Cheikh Ahmadoul Fadal ibnu Xaadim Rasoul moom lañ toogal ni sax xam naa di ko jégalu bu baax a baax ci xat-xat buñ ko nuyoo ziar ko sëñ bi doon waxtaan ci tomb bu am solo xam naa dañ koy jox kàddu gi lépp lu mu ñu mën a tënkal ci tomb bi ak yóbbal boo xam ne ni dina ko jox mbokki taalibe yi ñeel dundal koor daal di koy nag royee ci njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bi ñu ngi lay sant li gërëm di nuyu mbokk yi seetaan Al Mouridiyyah yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ci Sénégal ak biti Sénégal di tàmbali nuyoo bi ci ziara bi ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifa général des Mourides di ko mu yàgg fi loolu te wér li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp ma àgg rek ci sawa te ko moom noonu lañ ko ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa gépp di ko ñaanal njabootu borom daaru gi ñu nekk tey ci këram mu di Sëriñ Bachirou Anta Niang xalifa Cheikh Ibrahima borom daaru di siyaare njabootu waa Darou Mouhty gépp di siyaare murid yëpp di siyaare taalib yëpp di leen masawu ci xew xew bëkki dem nag dafa daje li ñuy wax tombé waral ay gaaf di sëñ eh, a ci li nga laaj xam naa li nga ko waxee rek weeru koor moom day ponk ñu ngi ko xam ci ponk lislaam yi Serigne Touba di koo xam léppam lislaam la fonkoon ko daan ci son lool daan ko dundal lool macha allah eh, dañu wax ne bu daan jub sax koy da koy waajal da koy waajal nga xam ne eh, dañuy seetlu ci moom mbég moo xam ne ak cawarte koo xam ne jéggi na dayo loolu mu mboyoo ci sangam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa wax ne eh, Ramadan mooy shahru ummati mooy mooy weeru xeet wi. nga xam ne dañaan wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana ajwada naas wa kaana ajwada ma yakun min riyaa min riyaahil mursal fi ramadan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon tabe ci nit ñi waaye li muy tabe tabe bu koor ñëwee day gën a tabe nag far kon loolu ci la sëñ Tuubaa nekkoon sëñ Tuubaa daan dundal weer yi jàngam alxuraan ma waxtaan ya teew ya naafile yi kenn du nelaw guddi kenn du nelaw bëccëg ñu ngi ci jàngum alxuraan ñu ngi jàngu xasa ñu ngi ci zikr ba loolu nag moom la murid yi tàmbali di ko wéel di ko wéel ba léegi ba gis ngeen ful ko woowee ci njaareem ñu ko fay doxal boobu ba tey da ko jamono Cheikh Amadou Bachir ñu fi nekk lépp Cheikh Amadou Moussa Bachir ba di ko wéyal ba gis ngeen sëñ Mountakha li mu sos ca Touba mu di njàng mu xasida mu kéemaane moom nga xam ne ñëpp koy siiwal ci àdduna si Daarul Muxti gi itam sos ko ci Wafa mu astal Wafa nga xam ne dañuy daje bis bu eh, di ko dundal def ay waxtaan bokkut ak li ñuy def ci guddi gi ak li ñuy def ci bëccëg bi ak salawaat yi ak xiraatul Quraan yi waaye di di fi sàkku teewaayu ay borom xam-xam ñu leen laabire ci diina ji te xam ngeen ne addiina addiina an nasiha loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon diina laayante biir la te innama bu'ithtu mu'alliman yàlla damaa yónni ngir may jàngale kon euh, lii ñuy def am jàngale la te Cheikh Ibrahima Maam Cerno borom dëkk bi jàngalekat la woon jàngalekat bu mag a mag boo xam ne ni nga koy waxee ngeen yàgg ko dégg rek Cheikh Mouhamed Fadel na mu ko daan waxee rek mag sama mag ju baax ja maam Cheikh Ibrahima dañoo jàngal bañ dañoo yar bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yee ñu bañ na jar kon yoonu yoonu jàngale la ndax yoonu lislaam la te lislaam diine jàngale la diine xam-xam la kon bu ko defee rek loolu la ma mbokk yi baaxee woon nag man tam ma del sant bu baax a baax nag ndax liggéey bu mel nii ku la ci tàbbiloo dafa te yéene la yiw ci lañ jamoon rek ñu tàbbi ci tey waxtaan ci benn boo xam ne àdduna si soxla na ko àdduna si war nañ ko jëfi muy muy muy yàddën yàddën koo xam ne da ngay da nangu da gëm sa bopp gëm li nga am gëm li nga am gëm li nga li nga nekk waaye nangul ko keneen ki tam nag mu gëm la mu gëm am la mu am ngeen war a maalante bu ko defee jàmm na ñooy waaye maa am dëgg kenn ku mën amul dëgg wala yoon yu ma yaar ma képp yoon yu baax kenn amul beneen yoon loolu boo ko defee rek daal di xat te adduna bindewul noonu waaw eh, fa man chaa fal yumin man chaa njëkk a tolérant moo njëkk a yaa eh, maa ngi koy wax sànq rek dina wax ne islam bi yëpp moo dégagé principe boobu mooy laa ikraha fi diin yàpp eh, diine amul forcé da lay neex nga gëm neexu la nga bàyyi kon nag laa ikraha fil itam muridi itam amul forcé comme neex nga nekk taalibi comme neex nga bàyyi

waaye làqu sa kër nag di saagaaka def leen loolu moom la ñuy ñaan ñun murid yëpp ñu jukki mu jeex nag ndax nag noppi gi dafa ëpp waaw te Sëriñ Muntaxa baax na ba doon kenn dumal kenn ñun ñoo ko suñu bopp ñoo war a jóg di duma ko wax lu dul noonu ci sëriñ ñu duma la waaw suñ moom kenn moom ndax ak mbaaxam àgg na ci dafa jaboote ñëpp boo amee njaboot nag ñu reew da ngay sepp ñu reew ñu duma leen bu ko defee ñu jàngal ñu yar leen waaw ndax ma ko sànq ñaari dee rek fi am débat wala duma kuy wax lu baax lu am njëriñ ñëwul ñu débattre te sëñ Tuubaa kenn du xam lu baax looy wax mën koo défendre di ko contre képp koo dëgg mu koy contre wax ci loolu rek xamul ne xamul xamul lu baax xamul ko boo ko gëstoo xam ko rek bëgg ko boo ko boo ko bëgg ko xam jaay sa réewande ak sa coxot di wax lu dul noona làq sa bàyyi fële dal ci bàyyib jàmbur làq sa ak tooñ la waaw bu ko defee ñu dañuy dellu ci dumay rek waaw buñ buñ defee ku def loolu noonu ñu ñu ñu ñu delloosiwaat la yare la da nga teewaat ci yoon waaw Ah, xeexlawuñ kenn nag reylawuñ kenn waaye dañoo bëgg ku ñu bàyyi suñu jëf ndax keneen ku foo mën a nekk ak noo mën a mel neex nañu su ñoo nekku ci ku na la yàlla def neex nañu waaye ñun te bàyyi leen ñu yàlla def nag bu nag maandu <laughs> nañ yow ku ne na la yàlla def nangu nañ ko waaye nag nit nangul nag ni ñu yàlla def ñu tam def ko suñu sëriñ te dëgg mooy message bi kuñ ci bëgg def lu doon nag jëf leen ko yow te ci réew mi lañ dëkk ragalu ñu tiituñu amuñu lu ñu làq rek te lu fi xam nañ ko nag <laughs> wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin وعندك اجعلها أجل خيري بلا نهاية وحلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف